asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàkkusaan si li si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës tolluwaayu mbasu jamono niki bésu tey jii toll na ci téeméer ak juróom fukk ak ñett ña nga xamante ne ñoom ñoo ko amee bees téeméer ak ñaar fukk benn kenn ci ñoom xamul fan la ko jëlee ñett fa ñoom daal di ci ñàkk seen bakkan loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li mel itam la ñu daal di nemmeeku foofee ca centre de traitement épidémiologique bu nekk foofee ca Thiès hôpital Ahmadou Sakhir na ñoo ne nag daal dinañ ci am ab njàqare ndaxte fi mu ne nii nag la fa nekk ciw lim dafa daal di jéggi dayo dinañ ci ñëw ànd ceeg suñu ndaw la fa di Babacar Ndaw ca booba jamono itam ca Mbour ña nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu pour pharmacie nii li ñuy gis rek bokk na ci ay nit ña nga xamante ne dañuy ñëw di jëndal seen bopp ay garab loole njort nañ ne nag am na si ñooñ ña nga xamante ne jot nañu amu wopp sile di coronavirus kàddu yiñ ci daal di yëkki loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel ñu ci boole yeneen xeetu xibaar wax saxlaat lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi ak it feebaru pays bi nga xamante ne daal dinañ ko déggaat ci bët saalumu réew mi ban jàngat ban taxawaay ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Assane Thioune moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk talaata yemboog ñaari fan ci weeru février ñaari junni ak ñaar fukk ak benn yooye xibaar ñu dooree ko ci tolluwaayu mbas niki bésu tey ji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 ñaar ci Géejawaay Kolda Linguère Matam Médina Ngor ak Popenguine benn ci Almadi Daara Cambérène cité Aliou Sow Aliou Sow cité Gadaye cité Impôts et Domaines Colobane Derklé Diamniadio Fass Gibraltar Grand Mbao Grand Yoff HLM Fass HLM Grand Médine Kanel Kër Massar Mékhé Nord Foire Parcelles Assainies Petit Mbao Sangalkam Sébikotane Sokone Thiaroye Azur Thiaroye sur Mer Thilogne Tivaouane Yeumbeul Yoff ak Ziguinchor ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñett si malade yu entré woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom fukk ak juróom benn ñoo nekk réanimation ñett malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb altine benn fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett fukk ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñaar ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett wér nañ si juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo génn àdduna mu des ñeent junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom si lalu hôpital yi wala ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi docteur El Hadj Mamadou Ndiaye noonee nag la ñu daal di àddu ci beneen ci mbir moomee ba néeg nii foofee ca Thiès ci kër ya nga xamante ne la ñuy daal di saytoo ñi amee feebar boobee fi mu ne nii ci sant de traitement épidémie yu nekk ci hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène euh, gis nañ ne nag lim ba fa daal di nekk dafa daal di jéggi dayo ba tax ñay yëngu ci wàllub kër docteur di sàkku mboole semaskan wi ñu gën a takku ngir rek xeex lii la di mbas mi Thiès Babacar Ndaw tolluwaay mbas mi jégg na dayoo si diwaanu Thiès bu ñu sukkandikoo si ñi nga xamante ne ñoom ñooy docteur yi dénk bërëb bi ñuy fajee ñu ànd ak mbas mi si centre hospitalier régional El Hadj Ahmad Sakhir Ndiéguène bu Thiès professeur Madoké Maguette Diop mooy coordonnateur secteur bu l'hôpital bi donc feebar bi fi mu toll nii eh, jégg na dayoo kon ku yabu rek jàppale ñu si mesure euh, barrières yi am na ñu nekk isolement ñoo xam dañuy obligé di leen traité foofu te na ñoo xam tam ñu ngi leen di traité à domicile ñoo xam ni seen santé dina ko euh, nangu bu ñu sonnee ñu gaawantu indi leen ñoo saytu wàllu faj mi di si yokk ne tey jii débordé nañu sa képp ku nekk war nga si dugal sa loxo. ba ci weekend bi ñu ngi amoon euh, fukk ak juróom-ñett mais après dañu am deux décès mu nekk seize mais capacité bi euh, demande bi dafa forte parce que centre bi euh, wax naa ko sànq centre régional la dañuy sollicité Mexe dañuy sollicité Xombol dañuy sollicité Tivaouane fu nekk yenn saa yi sax su fekkee ni malade dëkk na fu gën a sori foo xam ne am na centre fekk fii gënal ko ndax dafa am mbokk bu nekk mu gën dal xelam jël ko international j'allais même dire national dañoo mujj sax léegi capacité bi ak feebar nu mu demee directeur jàppale ñu ak ministère pour ñu yokk ko mu jógee quinze yi ñu foogoon yi ñu waxoon au début dem ba vingt deux yi dénk bërëb bi ñuy fajee ñu ànd ak mbas wi si centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir bu Thiès da leen di sax bu ñuy dégg ne ay doomu aadama di wax ne jàngoro bi amul nous sommes confrontés à des personnes qui nous disent est-ce que Covid existe cela fait mal le mal nag mel na ni bokkuñu si loolu moo tax ñu jël ci seen euh, ndimbal euh, jëbal que CTE bu sa jox leen ay jumtukaay si wàllu bot matériel de protection ak ay produits alimentaire ngir gunge leen si euh, liggéey bi Babacar Ndaw Thiès Sud FM ci ginnaaw bàyyeekoo foofee ca Thiès ñu dem ca Mbour àddu ci yëfu pharmacie nii foofee nak gis nañ ne Euh, ginnaaw bi nga xamante ni ñu koy daal di saytu nag fi mu ne nii ñoom la seen tiitaange bokk na ci ñu daal di amee feebar bi leen ndaxte nag ña nga xamante ne ñooy ñëw di jënd fa ñoom la ñu sàkku bokk na ci ñu daal di am ab ba nga xamante ne buñ ko solee dinañ mun a mucc ci la nga xamante ne moom mooy feebar boobu fexe itam ñëpp daal di mën a faj wala boog ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe ñaax askan wi ci taxawaay gi ñu mën a am ci wàllu woowee. dem ba Mbour fekk fa Moustapha Sall. Euh, docteur euh, Ndiaye Maya Savaay assistant à la pharmacie Ma Abdou Aziz Dabakh euh, de Mbour. voilà c'est docteur Koli pharmacie Abidjéré Mbour. Ndiaye ak Koli. ñoom ñaar ay docteur lañu ñoom dañoo yor ay pharmacie fii ci Mbour dañuy dalal ay client ak ñu nga xamante ni dañoo feebar ñoom daal jàpp nañ ne daanaka seen kaaraange mi ngi ci xottu gerte ci jamono yu mbas mi waa fii moom exposé nañ trop ndax ñu ñu am signe yëpp fii la ñuy njëkk a ñëw avant ñuy dem hôpital donc exposé nañ trop waaye nag dinañ jël suñu matukaay yëpp ba nga xamante ne ku ñëw dinañ la wax nga respecté distance bi dinañ la wax nga raxas say loxo ci gel hydroalcoolisé avant ngay wax ak bëri na nit ñi nga xam ne yoruñu masque dañ leen di wax ñu taxaw ci biti fekk leen ci biti daal di jël lu ñu soxla ordonnance ak yooyu ñu jëm leen jaay ñoom nangu nañ ne seen liggéey du ràññee ki nga xamante ne ni am na feebar bi moo tax sax ba ñoom dañuy ñaax wala ñu wan law yoon wa nga xamante nii da nga fa jaar su fekkente ne am nañ xiini mii ni ci say mbir. am na ñu fiy ñëw di am ay symptômes. donc ñooñu noonu lu ñu mën a def mooy orienter leen à l'hôpital wala si structure sanitaire yu gën a jege. symptôme tant que test bi amul mënoo wax avec certitude que dafa am corona wala amul corona. dañu nañu soupçonné waaye nag comme mën nañoo wax avec certitude euh, corona la donc euh, duñ ci wax euh, dañuy juste sensibiliser malade bi pour yenn symptômes yi ne bu vraiment euh, fièvre bi ak toux bi ak soj ñu daal di rapproché wu ci personne indiquée bi mooy docteur bi médecin bi. bi bi amee léegi am na garab yu nga xamee ne nit ñi moom la ñuy gën a laaj moo tax ñoom ñii daal ñu daal di wax ne. faaw nga am ordonnance ñu soog la koy mën a jaay. ci corona bi ñëpp dégg nañ azithromycine dafa baax donc sa euh, fait partie euh, des médicaments qui son les les plus prisés en azithromycine antibiotique la dañ koy laaj dañ koy laaj bu baax sax d'ailleurs sax euh, stock bi dafa wàññeeku des fois même duñ ko am pour éviter l'automédication dañ leen di dañuy exiger. ordonnance dañuy bañ léegi systématiquement di exiger ordonnance parce que dañuy bañ automédication. mbuur nag bokk na ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu nekk fii nga xamee ne corona bi bari na fi lool ci lu matul ñaari fan lu toll wala lu ëpp kon fanweeru cas communautaire di wàllante mbedd mi gis nañ ko fii ci diwaan gi Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. bàyyeekoo mbuur ñëw fii ci ndakaaru ci banlieue bi foofee itam donte ne sax euh, gisuñ ñeen nag am na ña nga xamante ne dañuy jël lii la di euh, dañoo amee mbas mile wante la ca ëpp ci pharmacie yooye garab yu ñuy jël gis nañ la ca ëpp nag day. dañ koy faje lii lee di euh, mbas mile donte ne sax ñu nga xamante ne ñoom ñooy yenn client yu koy def sax amuñu firnde ne nag am nañ feebar boobee euh, ci banlieue boobee nag tax na ñoom ci seen wàllu bopp ñu daal di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy jëndal seen bopp garab yooyu te bàyyee ko wul kër docteur ñu dem ba foofee fekk fa suñu ndaw di El Hadj Moussa Ibrahima Seck mooy borom pharmacie Fatou Badji fii ci Rue des Niayes ca Pikine moo ngi toog si kanamu keesu bu ñuy fayee ci pharmacie bi nag ca pegg wàlla jaaykat bi nag di toppatoo client yi nga xam ni ñoo ngi bëri ci biir pharmacie bi léeg-léeg mu doon ñoo xam ni sax dañuy ñëw pour laaj njëgu ordonnance ba la muy jar léeg-léeg tamit ñenn ñi ñëw di laaj daal yenn garab yoo xam ni dañ koo bëgg a yittewoo pour seeni faju fi nag daanaka ñi nga xam ni nag dañuy ñëw di laaj rek garab yoo xam ni daa jëm ci la ñuy fajee Covid bi nag noonu naam bu nekkee sax léeg-léeg mu am loolee ki ko biral di borom pharmacie bile. non c'est très rare c'est très rare mais euh, au niveau des médias ñoom euh, patients yi seen bopp xam nañu ne bon azithromycine quand même mm-hmm. day euh, participer si. le curatif euh, si Covid daal. population bi xam nañ ko daal. waaye moomee nag lu ma gën a ràññeetle jamono ji dama koy xamle mooy daal kayitu ordonnance yu bëri yi nga xam ne nag daanaka da koy bëri di jot daal la ci ëpp garab bi nga xam ne nag mooy faj Covid bi daanaka da cee bëri di bokk te loolee li mu seetlu jamono jii la. mais qu'est-ce qu'on remarque maintenant que malade yi suñu demee opital maintenant presque prescription yu bëri dañ ci ajouté azithromycine bi daal man ce que j'ai remarqué moomee di borom pharmacie bi nag xam le ni nag daanaka daal client yu bëri nga xam ni dañuy bëri di ñëw nag léegi léeg dañuy waxtaan ak moom di ko laaj daal. te nañuy aaroo ci li jëm ci li nga xam ne nag moo di feebaru Covid bi naam sax bu nekkee léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy ñëw di bëgg jënd ni ki mel waaye léeg-léeg daal day taamu nag ñu daal di leen koy bindal ba noppi. presque euh, malade yi daal dañu demandé daal euh, problème Covid yi daal c'est-à-dire que souvent euh, problème barrières yi rek la ñuy ak ñoom mooy gel bi distanciation yi mel noonu quoi. El Hadj Moussa Thiam mën joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. Mm, syndicat bi ëmb pharmacie yi nag ci Sénégal ñoom seen wàllu bopp la ñoo sàkk bokk na ci benn protocole ba nga xamante ne ñoom ñoo koy daal di bokk maase fexe itam déggoo ci fànn boobee ba xam ana ban taxawaay la ñuy am bu fekkante ne njort nañ ne nag kenn ki ñu gis ci wàllu client yi wala fa ñoom dafa am mbas mbile ak taxawaay giñ ci war a mën a am loole moom mooy seen daal di seen eh, taxawaay seen njàngat eh, ba tax ñu daal di sàkku ñu yaatal bu baax a baax lii leen ñu duppee te élargissement wu test diagnostic rapide yi di TDR yi bu ko defee ñoom seen wàllu bopp xool ananes lañ koy saytoo eh, bu ñu sukkandikoo ci njiital syndicat boobee di docteur Assane Diop di ngeen ko teewlu ci suñu xibaaru français yi. ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu jëm ci wàllu liggéey yi ñu nemme ko ci biir ndakaaru yi lépp doon la nga xamante ne dafa xat ñëw nag boole ko ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu poussière bi loole moom moo ruusee ci liggéeyu BRT bi daal di andi coppite bu baax a baax ci dem beeg dëkk bi am gàllankoor nag ca nit ñi Josette Kali seeni génn yombatul faw ñu wiiri ngir mën a yegg seen bërëbu liggéeyukaay wala dem ci seen kër barrière yi nga xamante ni teg nañ ko ngir liggéeyu beerte bi yombalatu leen mbir yi dara. gàllankoor na bu metti jafe-jafe yi boo xoolee ñi nga xam ne tey jii dañoo amee laago pour ñu jàll rek problème la même ñun ñi nga xam ne sax ñi ngi ak sunuy ñaari tànk da ngay obligé di def grand tour fi nga xam ne da fa doon jàll dem facilement dafay metti trop. sonal nañu carrément nag franchement parler. ay wër pour trop waroon nañ ko waajal bu yàgg. travaux yi bien vrai que baax na mais mënoon nañ ko xalaat bu avant ñu koy def ñu sóoraale passage piéton yi calculer ko mais doo xëy du jour au lendemain rek nga ñëw def ay travaux yi nga xam ne nit ñi fi ñu doon am habitude di aw dañuy mujjee di def di tourner tourner bu métti boobu noonu. daanaka ci xolub fi ñuy liggéeye foofee la agence service bi nekkee waaye poussière ak riirub engin yi ñoo leen di sonal bu baax a baax. góorgóorlu rek jéem ko affronter parce que nag comme mënuñu ci lu bëri moom mais poussière bi sonal nañu trop sonal nañu parce que machine yi bëgguñu poussière donc day indi panne chaque fois dañuy obligé rek di nettoyer di nettoyer te boo xoolee clients yi aussi côté bi am travaux yi dañ koy daw dem beneen côté bu amul ay travaux donc suñu clients yu ci bëri ñëwatuñu jéggi beeg yooyu dafa fatt yoon bi aussi. lu sorewul foofu ci bile restaurant moom daanaka fomp gi dañ koy gën a def léegi rawatina ñam yi ñu koy ub bu baax a baax. y'a poussière. bi bëri na lool moo tax chaque trente minutes il faut ñu fomp a rideau la ñu wàcce nii ngir wàññi poussière bi ndax bëri na ñun ñi sax li ñuy préparé yëpp pour commande la kon war nañu am taxawaay di upp lépp pour poussière bi mun cee bañ a dugg fii rek lañ ko mën a defaree comme sur lay doon poussière bi nag sonal nañu trop vraiment sonal nañu ba pare teg ci it amul fenn fu nit mën a jaar. c'est vraiment compliqué. ñi yeewoo ca Sacré Cœur ak ca cité kër góor gi faaw ñu muñ fileeg ay weer laataa ñuy tàggatoo ak bile situation. tàggat yaram mbuur la ñu jëm foofe dafa xayma ci juróomeelu bëccëg bi nga xamante ne nag équipe yu nekk foofe daal nañ ko amale li ñu ci nemmeeku nag ci wàllu Ligue 1 amul kenn fa ñoom ka nga xamante ne jot na am ndam. ci Ligue 2 Kër Madior rek moom moo ca daal di am ndam ñu dem ba foofee fekk fa Moustapha Sall. juróomeelu bëccëg bi daal neexul dara ci ñi nga xamante ni ñooy ñetti équipe bu Ligue yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Mbour amul kenn ku nga xamante ni rek gañe nga ci sa match ci njeexitalu ay bis gilee jàmbaar bu sali moom daal dafa dem rek daanu fa nga xamante ni mooy Ndakaaru waa douane ñoo ko daan na douane yi daan ñi nga xamante ni ñooy waa sali yi ci benn bal ci dara. stade de Mbour moom daal di wàcc ñaari point fii ci këram da doon dalal CNEPS excellence bu Thiès ñu témboo gannaaw match nil boobu li nga xamante ne kenn dugalul sa moroom benn bal ca fa nga xamante ne moom mooy am tàggam di tanière bu Bruno Metsu stade de Mbour fi ñu toll nii jàppale ne mi ngi ci juróom benni poñ ci juróomi match ñetti nul la am benn ndam ak li nga xamante ni mooy benn jël fi ñu toll nii sax ñoo nekk ci juróom-ñeenteelu place bi ci Ligue 1 dëkkandoom bi nga xamante ne duñu ñu laalee moom mooy Mbour Petite Côte moom nag ndorteel lu jafe la am ci saison bi lee waaye ci bëccëg bi dem na nangu ji poñ fa nga xamante ne moom mooy Louga njàmbur la doon dajal ci stade Albouri Ndiaye ku ci nekk benn bal nga dugal sa moroom loola sax tax ba ñi nga xamante ni ñooy waa MPC nekk ci fukkeelu place beeg ñaar ñoom ñi jël ndaare rek la ñu raw fi ñu toll nii ñetti jël la ñu am benn nul benn ndam rek la ñu amagul gannaaw juróomeelu ndaje ñu jàpp ne jàmbaar mi nga xamante ne donte daanu na moom ba léegi moo nekk ci kanamu classement bi ci Ligue 1 bi fukki poñ la daal di bind ci tablo bi ñoom ñi ngi soog a am jël ba ñu dooree ba léegi ñetti ndam la ñu amoon ak benn témboo tey jii la ñu njëkk a amub jël seen attaque baax na ndax dugal nañ juróom-ñaari yoon juróom yoon nag dugal nañ leen ko loolu mooy kon match bu jot rek boo ko doon xayma ñu jël benn bit ñoom waa jàmbaar yi. jàpp leen ne ci Ligue 2 bi ñaari équipe ñi ngi ci bokk fii ci Mbour ñoom ñaar daal ñoo nuroole bëccëg ndaxte ñoom ñaar ñëpp am ndam ci juróomeelu bëccëg bi. Kër Madior moo daan jamono bu Fatick benn bal ci dara la ko daal di daan nekk ci ñaareelu place bi ci Ligue goney Malick Diop yi nag fi ñu toll ni ñoom seen ndorteel. baax na lool ndax ñetti ndam la ñu am benn défaite ak benn match bu nga xamante ni dañoo tawoo kan doon dajeel la beneen équipe ba nag mooy Demba Diop FC moom daaw la yéeg ren mooy ñaareelu atam fii nga xamante ni mooy ligg 2 moom nag moo doon dalal EJ Fatick daan ko ñaari bal ci dara mu ngi ca ñaareelu xaaj ba ca tableau ba juróom-ñeenteelu place ba la toog juróom-benn poñ dong la bindagul ñetti jël la amagul ñaari ndam juróomeelu bëccëg bi nga xamante ne moom la ñu génn fii ci Mbour Sud FM. jërë ngeen jëf mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax ñu woote ak ñu jotuta woote ñu doon jëm itam te yegg si wuñu ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tuuti bu juróom-benn waxtu jotee ki la ay Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon sud éducation moo ñuy wutu ci togg gi buñ ci noppee ñu bàyyi leen ngeen wéyandi ak seen programme seen rajo ànd ceeg Assane Thioune